mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu nuyoo boobu ñu koy teg ci suñu sëriñ suñu yaakaar sëriñ Mouhamadul Mountakha di wax ne ñun ñi fi teew nañu ñaan ñi nga xam ne dañu faatu ci réew mi te di ay sénégalais yoo xam ne mënoon nañoo jariñ réew mi lu baree bari muy ñett ñoo xam ne faatu nañ ci manifestation yi amoon vendredi ñu fàttaliku ñooñu bu baax ñaanal leen aussi tamit ñuy massawu journaliste yëpp Walfadjri mi nga xam ne fan yi dañoo coupé chaîne dindi licence alhamdulilah bi ñu ko ko delloo waaye benn minute rek kenn waru koo xañ nit ñi information yu ñu war a am waaye ñuy massawu tamit suñu mbokki RFM yi ak TFM nga xam ne wax dëgg yàlla fan yii bu ñu nemmee ko am na ay violence yu ñu am ba seen locaux yi nekk fii am na ci ay yàq-yàq yu bon kon ñuy dénoncer lool aussi di dénoncer tamit fii li am ci dëkk bi bu yàggul ci manifestation yi euh, waa kër famille Alaaji Dam Silla ci station boobu nga xam ne xum ma moo ci nekk doomi alaaj taal euh, Dame si la wax dëgg yàlla loolu ñu koy ñaawlu ndax sénégalais boo xam ne li nga liggéey moomal ko sa bopp ñu yàqu ko loolu kenn waru ko mën a rafet kon ñu tàmbalee ci loolu wax ne nag lan moo xew ci réew mi ñun ñëpp ko yëg ñun ñëpp ko xam lan moo xew ñun ñëpp ko yëg lan moo ko xam mooy ne sénégalais yi dañu tàmm di def ay élection biñ ne campagne mi ngi tàmbali tey ñu jékki-jékki yëg ne léegi élection yooyu amatul mi ngi mel ne tey man damaa jël sama dépense jox ko sama aawo te am naa ab ñaareel aawo bi mu demee bay fégal ne moom du joxe mukk suma ñaareel toog mu jaral ko nañ toj kër gi rey doom yi rey jëkkër ji waaye moom loolu mooy am wala ñu négocier waat ay te bu ñuy négocier waat ay gi moom mooy teg condition yi mu koy négocier maanaam ci ni ma ko mën a misaale dafay mel ne loolu moo xew décision boobu bi ñu ko jëlee lan la indi ci réew mi indi nañ fi ñooñu ñu wax ne dañoo faat yemuñ ci ñooñu gis nañ ne violence bi am ci réew mi kenn xamatu ko maanaam réew mi baraa na ñoo xam ne yàqal nañ leen mën ñoo xëy bëgg ñoo xëy dagg nañ internet bi kenn amatut koy jokkoon kenn mënatoo dem kenn mënatoo dikk waaye yemuñu ci loolu bu ñu xoolee tey liberté yi sénégalais yi amoon yëpp dañ ko bafoué dañ ko nangu bu ñu xoolee tey kilifa diine yi nga xam ne moom la ñu yaakaar ñoom lañu am tey lu nekk ñu ngi koy dégg lan moo tax décision yooyu yëpp am ñu kon li ñu mën a seetlu xam ko mooy suñu réew mi ngi ci crise suñu réew mi ngi ci jafe-jafe mais jafe-jafe boobu sax bu fekkoon ne réew mi maanaam dafa nekk loo xam ne waa réew mi ci boppam ñoo ko sabab wala ñeneen waaye koo xam ne ayam dafa jeex mu fégal bi mu fégalee na léegi nag kenn du fi togg loolu de moo indi jafe-jafe réew ba pare ne léegi nag nañ waxtaanaat loolu am nag moo tax ñu daje fii pour wax li ñu wax mooy nous sommes tous pour l'état de droits nous sommes tous pour l'état de droits xam na am réew am réew lenn rek moo ko mën a saxal mooy lan mooy état des droit mooy kenn ku ne xam la nga moom xam la sa yoon nekkut xam la nga bokk ak nit loolu boo ko amul rek xamoo ko rek loo mënta def amul loolu nag la ñu sedd na moo am loolu nag loolu bi mu amee tax na crise yi am ci réew mi tàmbali lan crise moo am école bi jàngatuñ sëñ daara yu bari arrêté nañ leen ñu ngi ci kaso yi jàngalekat yu bari ñu ci kaso yi ay journaliste arrêté nañ leen léeg-léeg sax ñi war a dem hôpital fajo ji mënuñoo dem parce que grève maa nga fa école bi jàngu social bi nit ñaa ngi commencé di xeex di bañante mooy li xew fii ci Mbàkke Bawol fii ci Touba ci dëkk bu sell bii ngeen gis ne ñaari fan yi débat bi nekkatul l'essentiel mais lan mooy débat bi ah kii diw nee na lii diw nee na lii diw loolu ne te ñoo xam ne ñoo bokk geneen kër lañ bokk waaye sax du loolu loolu du essentiel parce que day mel ne politiciens yi léeg-léeg bu problème amee dañuy wut ay questions diverses pour nit ñi di dialoguer ci loolu di ci wax bàyyi essentiel bi bi mooy suñu réew moo am jafe te jafe bi li ko indi mooy jalgati jalgati li ñu bokk jalgati li ñu tënk te mooy la constitution te loolu dañuy gëm ne dafa am ñu ko def amul waxuñ na ne nag système électoral Sénégal dafa parfait waxuñ ne amul ay manquement parce que ñi fi wax ñëpp dégg ngeen leen coalition yi wax yëpp ne ñoom jàpp nañ ne sibi nañ ay injustice waaye accepté nañ ko am na ñoo xam ne ay politiciens lañ gëmoon nañ ne 2024 dañuy nekk ay candidats def nañ leen ca kaso ba waaye ñooñu taxut ñu ne mukk ay élection am fexe nañ ba amaat ñeneen ñu ñu jiital leen mais am réew nag noonu damay yaakaar kenn du ko personnaliser am réew ay institution la dafa am lu am solo loo xamee ne Barack Obama bi mu ñëwee Sénégal yaakaar naa ci boobu jamono sax le président de la République Macky moom moo fi nekkoon. dama wax ne Afrique dafa soxla ay institution yu am doole yu dëgër yu mën a sàmm la démocratie africaine mais soxlu ay homme fort ay homme fort bu ñu xoolee nag Sénégal euh, li am day mel ni institution yi dañ ko bëgg a faagaagal kenn mooy doon institution bu mag bi mooy njiitum réew ñeneen ñëpp ay surga la ñuy doon keneen amaatul ci àq kenn amaatul sañ-sañ loolu moo indi nag conséquences yi ñuy gis conséquences économiques Sénégal ñaata la perte ci économique conséquence sociale Sénégal tey ñaataay xeex di xuloo ci seen biir te ñoo gën a bëggante gën a soppante léegi da ngay bokk ak nit kër sax boo tudd da ngeen xuloo da xeex parce que décision yoo xam ne dafa baaxul ci réew yemul ci loolu ñu am conséquence yeneen muy lan économique ñu am yeneen conséquence muy yan muy éducation même culturelle yooyu yëpp nag ci décision yoo xamee ne fi nga ko war a jële jëlee ko te bu ñu fàttee ay deuxième guerre mondiale ak première guerre mondiale ci yu ndaw ci la déclenché wu kon nañu ñaan yàlla jàmm rek xew ci réew ñuy woote sénégalais yëpp ci dal ci jàmm manifestation nañu ko respecté xam ne lu constitution bi wax la ñu bàyyi nit ñi ñu def ko ñi koy def nag nañu sàmmoonteeg li nga xam si mooy jàmm ak salaam te gis naa ne leader politique yëpp loolu la ñuy def gis nañ tam violence yi nga xam si ne am na comme ñi ko ñi ma ci jiitu waxe muy Serigne Ismaïla la gis ngeen yooyu yëpp am wax dëgg yàlla dafay ñàkk image Sénégal Sénégal tey dafa ñàkk politiquement Sénégal au niveau national international dafa ñàkk image am dafa yàqu loolu nag ñun sénégalais ñoo ko mën a defar lan nañ ko mën a defar lan mooy solution ci yii am ci réew mi ñun mouvement ànd saxal dëgg mouvement ànd saxal dëgg lan la gis na mooy solution ci li li nañu respecter conseil constitutionnel am na ay recours yu fa dem nañ ñu ngi koy ñaan mu gaaw joxe lool ci délai yi gën a baax bu ko defee la mu joxe sénégalais yi tënku ci ndax état de droit moom mi ngi commencé ci respecter conseil constitutionnel ñu ngi ñaan tamit le président de la république mu libéré mbooleem détenu politique yi wala ñëpp ñoom dañu leen détenu détention arbitraire ñu ngi koy ñaan ñooñu ñu bàyyi leen ñu dellu ci seeni kër ndax loolu dafa metti fan yi rek am na koo xam ne doomam dafa sëfaru taxi la woon di sama mbokk di sama xarit da dem ca gaar gaare rek di dem ñu jàpp ne da doon manifesté wu ñu yóbbu ko rëbës attee guñ ko léegi mu def fa lu mat 7 euh, mois te loolu mën nga ci ay junni junni junni junni ay sénégalais lambda koo xam ne taxi ba mu yoon ci lay yóbboo dépense seen kër kon ñu ngi ñaan mbooleem détenu yi nekk arbitraire yi ñëpp ñu bàyyi leen libéré leen loolu ñu ngi koy naan président de la république ndax mandaam jeexagul aussi ñu ngi koy ñaan conseil constitutionnel mu atti dëgg waxu ñu ma masla bu mu xool kenn Sénégal nag li fi am léegi mooy dañ lay terroriser politiciens yi dañuy terroriser kenn du wax dëgg kenn ku ne day bëgg nga wax moom li mu bëgg nga wax te ñun ñëwuñ pour waxal ma Samba wala waxal ma Demba li ñuy wax mooy Sénégal moo ñu ñor dëgg rek moo ñu ñor dëgg googu nag bu ñu ñoree nuñ koy waxee mooy nañu xool lan la yoon wax ñu def lool yoon fii moom ñëpp la fi nekkal yoon ñëpp la fi nekkal kon boobaa loolu rek lañu kii ñuy waxaat tamit ñi nga xam ne dañuy manifestewu wu manifestation am nan droit waaye nañu moytu di yàq yàq gi metti na ëpp na parce que li nga yàq askan wi askan wi ñu ngi ñaan ñëpp ñu moytu di yàq yàq baaxul ku yàq buñ la ko àttewul fii ci àddina tamit bu yow mal xiyaamee da ko fay kon nañu moytu yàq gi aussi ñuy wax ne fii ñu nekk muy bërëb bu mag bu sell bi ñu ko ñuy waxee ñëpp rek amul ñu dul sëriñ Tuubaa amul ñu dul ndigalu sëriñ Tuubaa te sëñ Tuubaa tamit amul ñu dul taalibeem yi taalibe sëñ Tuubaa yi sëñ Tuubaa daf leen a woo ci boppam ngir dimbali leen def ci ñoom loo xamee seen waajur mënu ko ci ñoom kon bu ñu benn politicien jaral ñuy xëtt ndigalu sëriñ nañu jël ndigalu sëñ bi def ko ndigal sëñ bi nag saa su ñu ko defee njariñ dong lay jur ñu moytu nag manipulation yi nga xam dafay am manipulation nag mooy fexe ba diggante député bi ak diggante kuréel gi di coowante di sànnante ay tract ci internet bi déedéet loolu du intre yoon wi intérêt yoon wi mooy ñu ñëpp ñu àndandoo nekk benn ci ndigalu sëriñ sëñ bi lii mu def muy wax ci suuf ñam war a waxal diisoog ñoom di leen ko kii damaa yaakaar ne déedéet damaa gëm ne loolu moom mooy intérêt Sénégal te loolu moom moo gën loolu nag bu ñu ko tënkoo rek danañ am li ñu bëgg ñuy wax ne kon ñun mouvement ànd saxal dëgg ci coordinateur sëñ Ismaïla Mbacké ak ñi ñu ànd ñëpp ñu ngi woo sénégalais yëpp ñu ñëw adhéré wu ci mouvement bi te xam ne dëkk bii ñu nekk muy Sénégal ab république la république mooy yow Moussa yow Demba yow Ahmad yow Malick kenn ku nekk dafa am ay sañ-sañam yoo xam ne dafa am lu ñu cay jël boole ko jox ko état pour mu lan mu mu organiser ko ba kenn du tooñ kenn loolu mooy république. république boobu nag sant wenn sant ci dëkk bi leen léeg la sant mooy dëgg république leen léeg la sant mooy bëggante soppante Sénégal nag fii ñu toll am na ay jafe-jafe yoo xam ne dafa yaatu ci réew mi lool. jafe-jafe yooyu sax nit ñaa ngi yaakaar ne dafa tam à partir de euh, ci ci ci ci élection yi ñu fomb mais Sénégal bu ñuy seetlu depuis deux 2008 ba fii ñu toll dañoo nekk ci crise crise politique crise politique Sénégal solution Sénégal nekkul ci ay élection kese il faut réew mi moo war a ndëppwaat ñu ko si Ahmad Tidiane waxee sénégalais yëpp àndaat scienceaat xalaataat ban forme état moo baax ci ñun man may maa ngi waxtaan sama benn waay sax pourquoi pas ñun ñëpp ñu jàpp ci li ñuy wax présidentielle te am na yeneen régime yu fi am pourquoi pas du ñu jéem a xool régime parlementaire ñu essayé ko comme crise am na comme crise am na te Sénégal kenn nekk fi majorité opposition bi nekkul majorité ñi nekk au nekkul majorité te ñoom ñëpp ay sénégalais lañ kon nan la ñuy fexee bay rassembler ñoo ñëpp boole leen ngir intérêt Sénégal ndax ñi ma gisee camp yi am ci Sénégal non report des élections am na nañ ko report ba le 15 décembre am na mais ñoom ñaari camp yooyu bu ñu mës a juboo réew mi di dox bu ñu juboo réew mi di dox même tey bu ñu defoon élection tey tey tey benn camp gagné benn bi costé fi mu taxaw réew mi day continuer di nekk ci crise bii ñu nekk parce que crise bii ñu nekk depuis 2012 ñu ngi ci ba léegi kon loolu tamit nañu séerie daal nañu ànd te dëgg rek tax te Sénégal rek ñor ñu jiital intérêt Sénégal te gëm ne Sénégal bi ñu bëgg Sénégal bi nga xam dañ koo war a doxal sénégalais boobu kenn ku nekk da ngay jéem a service sa pays mais c'est pas yow da ngay jéem a jariñoo sa sa réew lii nag yu gàtt la yu ndaw la ci conférence de presse bi waaye point de presse bi ñu def invité ci journaliste yëpp pour ñu ñëw en tant que kilifa diine en tant que kilifa diine ndax Ahmed Tasrif Sougou foo ko wax ci waadaan ci Sénégal da nga xam ne famille bi ñëw nañ Sénégal ëpp na té juróomi téeméer te Sénégal mës a am problème ñun ñu nekk Sénégal problème bu mas am bu ñu ci associé problème bi day am solution kon ñi ngi ñaan mbooleem ñi ngi xam ñoo nekk ci Sénégal ci turu suñu mouvement ñu ñu ngi leen di tàllal loxo pour ñu ñëw ànd ak ñoom xool fan la problème bi nekk ak solution bi nan lañ koy amee loolu daal laa ne woon naa leen ko jottali may santaat encore presse bi bu baax te di leen remercier te di leen massaw ci li leen dal di massaw Walfadjri di massaw waa TFM RFM fii ci Mbàkke li fi xew Eh, ñaaw na lool lool te loolu benn bi état moo ko def mais benn bi askan wi ñoo ko def mais nag nañu ñaan ñi ngi ñaan état aussi mu xool ñi nga xam si ne dañoo yàqule ñi nga xam dañ leen a gaañ mu xool def état de lieu kuñ ci war a di demancé ñu def ko xool nañ la ñuy delloowaat kenn ku say àq ak say yelleef ndax état nag wóorta woyofal benn nit benn bakkan loolu suñu ko defee rek mi ngi mel ne ñëpp dañ leen a rey l'islam nag fonctionné wut noonu te ñun lislaam rek moo ñu ñor kon ñuy encore di santaat ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah